alayhi wa sallam wax na Njaasaan wax na Canaba wax na Laayeen wax na kilifa yëpp àdduna ci mbir mii loolu dafa wane ne ñoom ci bëggoon amuñu ko ci yuriiduuna an yutfi'u nuura llaahi bi afwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walaw kariha l-kaafiruun li ci des nag mooy mbi taxawaay bii maa ngi sàkku Auchan na xam ni julli di mere nañ ko ndax seen kilifa moo def lii total na xam ne julli di mere nañ ko jullit bu ci ne dama koy tàmbalee sama bopp fii ba at duma dugg ci Auchan duma dugg ci Total. attaque bi. allahu akbar. ndax ñom dañu wara yegni julli di mer nañ len ndax seen kilifa mo def lii te deureum bo fa duggal day doole ki nga xamni ñom ñep dañu tek seen kurel association ci souf mhm. tek seen tarixa tek seen nepp yëkkati Seydina Muhammad mi nga xamni moy sangu sangu yi sallallahu alaihi wasallam ñi nga ñaan yalla jotay bi yalla nako yalla yàlla boole ci jotaay yu gërëm amiin yaa rabbal alamin amin fi ñu koy defee tay ci Thiès ñang koy def ci Bignona ña ngi koy def ci dakaru ñang koy def ci Louga ña ngi def ci ciini ña ngi def ci rew yu bëre bëre bëri waaye ci Thiès gatcha ngalama taxaw ngeen taxaway bu rafet ñu ngeen yalla yalla fay leen yiwu gi yalla fay leen taxaway bi yalla suñu taxawul nak duñu taxaw ñom buñu ñu taxawul dellu gannaaw excusé wu ñu duñu taxaw danañ ko defaat ci ni wala ci nenen ñi ngi ñaan suñu kilifa yi ni ko kilifa diine defé naka nonu non la ko kilifa yi politique yi wara defé war nañ ci addu ñom ñëpp yëkkati seen kaddu ndax Seydina Muhammad motax ñuy gamu Sirna Muhammad moo tax ñuy magal sirna Muhammad moo ñu teral sirna Muhammad moo ñu may jamm fi ak fuñu dem assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam